waa xam nga CNG day dama am mbaa de état la benn pàcc la wax ne état moo ko teg pour mu suivre ko li nga xam ne mooy CNG de lutte. Mhm. alors dafa wuute ak euh, euh, comme football dafa wuute ak basket ndax ñoom dañuy am fédération. basket dafa am fédération. Mhm. fédération yoo am ne wuti politique li mu war mooy couvrir gérer tey bu dee. Euh, tey sénégale ni ñu koy doxee tey ba ngay far sax ni directeur société <laughs> mais politique moo tax ñu fal ko directeur alors tey mën nañoo fal de euh, président CNG président CNG bi gis ne moom fal gi ñu ko fal est-ce que du fa protéger mhm. kon foofu dafay sensible pour nga mën a wax ne CNG mën naa génne benn décret ne bëggatula dégg benn mbër si mhm. politique alors beneen bi mooy euh, acteur bi moom moo war a xam ki mu doon xam ban posture la am ci réew bi alors koo xam ne ni bu fekkee da ngaa génn euh, benn monde moo lay topp bu mag moo lay topp ful bi lay topp ñoom ku ci ne ak ki nga bëgg ku ci ne ak politicien bi nga sentir yow yaa war am honneur respecté di la topp ba nga xam te ne yow du am benn position ci politique. Hmm, ndax yow sa rôle du position ci politique amul waroo am benn position ci politique ndax yow acteur nga acteur de la nga. Hmm. nekk mbër boo xam te ne nii. sa code de popularité est-ce mi hmm. ndax tey président bi su génne aw nii nga génne aw nii yow la topp duñu topp président a